président Lenka Sabu Ben, noo def. ça va. naka campagne bi. ça va campagne bi neex naka coono bi ak heure ndogu bi nii. non mais on gère quoi. ah gars yi moom gis na sécurité bi moom. gis nga ñu ngi xëccoon bi jamono jii nii. non mais ñoom dañoo sonn vraiment. ngi caravane moom. bu la nit ñu bëri toppee foog nga foog sécurité bi liggéey quoi. waaw loolu la ya de. bu eh, sa caravane yooyee nag mais am na ba nga ba nga ba da ya, ngay def sa déclaration de patrimoine am na candidat Amadou Ba def déposé na of ba nga koy wax. non xam nga loolu moom rasu la vous euh, article 37 constitution Sénégal. mooy ndeyu charte réew dafa wax le président de la république nouvellement élu eu def déclaration de patrimoine mu teg ci naan conseil constitutionnel da koy rendre public Une déclaration de patrimoine elle est destinée au public parce que le conseil constitutionnel am obligation rendre ko public bokkut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 te mën a bëgg a prévaloir d'une honnêteté et d'une probité ñoom dañu war a nekk dans une maison de verre wax ne nii laa am ñëpp xam ne li ñu am nii méngoog nag seen at liñ def ci liggéey ndax fonctionnaire la ne milliard laa yore te fekk ne moom fonction ay emploi fonction publique rek la mos a a moom def na def na ci nag su léegi nag si bu amul lenn lu muy nëb na wane lu mu yore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 loolu ñun suñu responsable commune ñëpp en tant que candidat surtout ñoo xamante ne laale nañu ci ay fonction ak emploi a jiite réew nee leen bu toll ni sept mille milliards jox leen ma seen pétrole ak seen gaz ma ko ba pare bëgguloo wax fi nga jaar ak réew mi li nga jot a yor ak li ñu la dentoon surtout ku doon liggéey ci affaire xaalis donc bi doy na. doy na kay ne na ñeme mbir mi rek. waaw na ko ñeme de. waaw.